maa ngi tudd Amadou Thierno Gaye man professeur la fi école supérieure polytechnique lenn daara la si daara ju mag ñu ooyu université professeur ndax mun nga ñu wax tey climat bi ni muy évoluer waaw climat bi ni muy évoluer moo di dafay gën di tànk adduna bi boom xam-xam yëpp euh, d'accord lañ si depuis parce que 1992 ba tey di si waxtaan rek di si daje lu bëri parce que at bu nekk léegi adduna bi yëpp dañuy tase te beneen côté bi tamit boom xam-xam yi ñooy seet dañ si tànn ñeen bool leen si benn kuréel bu tudd GIEC nga xam ne ñoom léeg-léeg dañuy tase xool liggéey bu àdduna bi yëpp bind ñuy bind def ko si ay téere loolu ñu gis daal mooy dafay gën di tax tàngoor boobu nag li ko waral moo di ne lu ñuy ooyee gaz à effet de serre maanaam pétrole bi ngay gis ñu koy utiliser ak euh, par ne moom la soxla sax énergie bi ñuy soxla pour dund dafa am lu muy sànni si jaww ji loolu muy sànni si jaww ji lu koy mën rek mooy souvent garab gi wala géej te tamit gis ne depuis bu àdduna bi di commencé développer ba léegi si la ñu àdduna bi di koom-koom bi di yokk donc loolu nag bu ñu mun nga ko jëfandikoo loolu moo yokk maanaam affaire yi nu ñu ooy gaz à effet de serre si biir jaww ji ba léegi àdduna bi di di dox di dox di tàng rek di gën a tàng waaw tàngoor boobu nag dafa am lu muy lu muy safaane si maanaam lépp daal si àdduna maanaam géej gi géej gi dafay tàng suuf si di ndox di ñàkk par exemple di am ay sécheresse lu bëri si su développement Afrique foofu la jóge boobu benn exemple rek te loolu nag yaakaar nañu ne bu continuer àdduna bi continuer doxee nii ba muy gën di yokk jaww ji di gën a tàng léeg-léeg ñu am taw léeg-léeg am taw léeg-léeg taw bi yéex lool bañ nit ñi jaaxle ba euh, ak gis tamit euh, léeg ñu indi taw taw bi ñëw bëri ba jaaxal nit ñi ba muy indi sax ay inondation ba xam ne li si gën a métti mooy mënoo prévoir loolu taw yu métti yooyu ngay gis donc léegi nag bu dee sa réew amul doole ba nga mën defar ay égout ay canalisation ba fu ndox mi a jaar ah, yooyu sax dëkk yi nga xam ne sax dañuy prévoir yooyu yëpp ñoom léeg-léeg ñu foofu mais li nga wax nii gis nañ ne dëkk yu néew doole yi lay gën a sonal euh, pourtant ci accord yi ñu euh, amaloon ca Paris dañu waxoon ne ñoom dëkk yi am doole yi ne dinañu génnee koppar gu takku ngir jàppale leen mais ba léegi koppar bi kenn gisu ko loolu nag mooy mooy wax ci léegi nag adduna yëpp d'accord nañ ne bu ñu demee Paris ñu ne gaañ ah àla kuli léegi daal mënuñu bàyyi mbir mi ko continuer nii parce que si jaww ji daal fa ñu wàññi ko waaw léegi loolu nag koppar nga fexe ba ñi nga xam ne ñun comme suñu ñi nga wax nii ñi nga xam ne ñoo gën a doole comme suñu waa kaw bi ñi nga xam ne ñoom seen euh, koom-koom seen béy bi nga xam ne si béy la dépendre woon yàqu loolu ñu ne waa mais loolu kenn mënu ko bàyyee noonu il faut que am nu ñuy def ba ñooñu tamit ñu mën si gis seen bopp mais xaalis boobu il faut que ñu mën ko jëlee si bitim réew indi ko mais pas que mu nekk ay genre leb boo xam ne dañ koy lebal réew yi dafa nekk xaalis boo xam ne dafa war a compenser euh, li nga xam ne ñun ñoo ko ñàkkoon nañ li ñu ko ñàkkoon moo tax ñu egg si situation bi dafa réew yi sax demoon nañ ba d'accord si ne war nañ indi xaalis bu bu bu takku ñëpp ne woon nañ doyul sax lu ñu lu ñu kii woon voilà lu yooyu nag lu am solo la donc boo xoolee hmm. finalement affaire changement climatique tey jii nekkatul rek affaire sax euh, scientifique affaire météo affaire développement moom développement adduna bi moom kenn xalaat mënatul xalaat sax mu demee neneen nu dul si nga fonte ko euh, si si loolu donc loolu la dafay laaj nga développé nga am xam-xam bu bëri am ay borom xam-xam yu takku si mbir yooyu si secteur bu nekk nag se borom xam-xam ak ñu ñu siy liggéey ay techniciens ñëpp man si man si am xam-xam bu doy tamit ñëwit parce que ñu sóoraale ko tey jii mënoo tëb tëb mënoo too sa dëkk wala di def dara benn plan bu mënta nekk boo xam ne dafay ëpp cinq dix ans sans nga calculer changement tamit fokk nit ñi tamit jóg si africains yi surtout di dëkk yu yu amul doole pour que quand même ñu compenser leen te loolu loolu loolu dafa dafa war. waaw professeur Amadou Thierno Gaye waaw maa ngi école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta professeur Amadou Thierno Gaye Mhm. Je suis professeur à l'École supérieure polytechnique de l'Université Charente Diop de Dakar. Professeur, est-ce que vous pouvez nous dire un peu aujourd'hui comment évolue le climat Le climat, se réchauffe. La planète se réchauffe. Il se réchauffe à un rythme qu'il n'a jamais connu en une période aussi courte. Et on a déjà obtenu un réchauffement de plus de 1,1 Celsius au début du siècle. Et si ça continue comme ça, euh, sans aucune mesure, on, on, va rapidement vers des réchauffements de l'ordre de 4,5 degrés à la fin du siècle. Parce que cette augmentation de température, ce réchauffement global, dû à l'accroissement de, de l'augmentation euh, très importante des gaz à effet de dans l'atmosphère, crée aussi ce qu'on appelle euh, l'élévation du niveau de la mer, parce que euh, font des glaciers, etc., avec l'expansion thermique des océans, mais également se traduisent une euh, occurrence de plus en plus importante de phénomènes, par exemple, climatiques extrêmes. C'est les sécheresses qu'on a déjà connues hein, dans le passé, etc., etc. Alors, pour faire face à tous ces problèmes, il était prévu euh, lors de la conférence de Paris sur le climat des financements euh, pour venir en aide aux pays les moins pollueurs, mais on a vu que euh, la COP de Glasgow est passée, mais rien. Est-ce un problème aujourd'hui pour les pays africains C'est problème. Euh, si ma mémoire est bonne, c'était au moins un de milliards de dollars par année. Donc, et ça, c'est tout le monde avait dit que c'était tous les spécialistes que c'était insuffisant. Mais au, rendez-vous, les financements ne sont pas sûrs, euh, ne sont pas effectifs. Euh, il y a, quelques fonds, en particulier le fonds vert pour le climat, mais euh, l'effort qui devait être fait du point de vue des finances n'a pas été fait et ça a été reconnu d'ailleurs dans le pacte de Glasgow. Ce qu'on appelle le pacte de Glasgow, c'est le,

donc de d'incurver de, de, la, la courbe de, de, réchauffement, en tout cas de la ralentir et permettre donc euh, de passer les 1,5 degrés à, à, la fin du, euh, à la fin du siècle. Mais l'objectif de, de, l'accord de Paris, c'était plutôt 2 degrés, mais on, on s'est rendu compte que les 2 degrés, c'est trop important. Et donc pour ça, il faut des, des moyens, il faut des, des ressources financières pour financer bien sûr l'adaptation, parce qu'il faut que euh, les pays qui n'ont pas bénéficié de cette manne financière, de cette, de cette, de euh, provenant des combustibles, à effet, euh, des, des, fossiles qui produisent le renforcement de l'effet Donc ces pays-là doivent tout de même pouvoir garder leur trajectoire de développement. On ne peut pas leur, leur demande de ne pas se développer. Et, et, pour ça, il faut, il faut des ressources. Il faut des ressources pour qu'on euh, puisse avoir une agriculture qui puisse s'adapter au changement du climat, qu'on puisse faire face aux effets des inondations, pouvoir planifier les villes, pouvoir euh, faire face également aux conséquences euh, sanitaires des changements climatiques, comme par exemple euh, l'accroissement des vagues de chaleur qui risque de créer des maladies cancers de maladies cardiovasculaires. Mais c'est aussi de la technologie, c'est c'est les changements euh, technologiques qui, sera nécessaire euh, à une grande échelle pour avoir un monde avec euh, décarboné, euh, sinon qui puisse produire des, émissions négatives, c'est-à-dire qu'on puisse plutôt absorber qu'émettre. Et pour cela, il y, a vraiment, beaucoup de ressources qu'il faut déjà mettre sur la table. Et les efforts des réductions qui ne doivent pas attendre doivent être également par un effort important de financement qui ne saurait attendre et remis à plus tard. Euh, certains ont perdu beaucoup, par exemple des États insulaires qui, vont disparaître, ou bien même des, en a des exemples euh, qui ont dû perdre beaucoup de, beaucoup même d'infrastructures des fois, et même d'infrastructures culturelles symboliques. À, ah, il faut quand même qu'on puisse imaginer à un, un, un, moment ou un autre euh, la nécessité de, de, la compensation, donc mm -hmm. ce mhm. qu'on appelle euh, donc le financement des pertes et dommages. Et tout cela est encore en négociation et, il sera important d'adresser une attention particulière là-dessus. Voilà, mais je, je pense qu'il y a un des important, c'est vraiment, vraiment la production de connaissances et des technologies parce que, bon, bien entendu, le, le, dire, les efforts sont très lents, tout le monde l'a dit, on a critiqué le PAC, Mais il faut quand même reconnaître également qu'il euh, y a eu des avancées. Hein. Il y a quand pour la première fois, on a reconnu qu'il faut, réduire l'utilisation des charbon, qu'il faut réduire l'utilisation des, combustibles fossiles. Mais derrière, il faut donc en même temps euh, pouvoir euh, mettre les, ressources. il, y a de la notion de responsabilité partager, mais différencier, et revient vraiment de, encore aujourd'hui euh, plus que d'actualité. Je suis professeur à Montpellier, donc je suis professeur titulaire euh, à l'école supérieure polytechnique de l'université Charente Dieu.